commune Agnam Dabie Oréfondé ci arrondissement des Agnam yëpp ñu ngi fi toog tey li waral suñu ndaje li ñu defoon daaw def ko daawaati jéeg moom la ñuy féddaliwaat di ko def ren ci gàmmu ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di samedi mu war a nekk guddi mawlud euh, di ma di ma ko daan def chaque at ren aussi ma ñëw bokk ak ñoom li nga xam ne ne suñu borom moo koy dogal daanaka ci wàllu euh, village officiel yëpp woo naa village ci gëna mag moy Oré Fodé ñom ñep fait bu ci né am na fukki ak ñaaru nak ak añam fukki ak huit Nous cinq trois pour ñu sen gam xel aussi ci suivi. chef de village yi nga xamné né ñom ñoy borom dëkk yi aussi ñu jox leen nga xamné ci ak ak ci ci enveloppe suñu imaam yi nga xam ne ginnaaw yàlla ñoom ñoo ñu yoral ngànk diine bi tamit ñu bàyyi leen xel ñu am fu ñu jaar ak ñoom ndax ñu yokk ñu ñaan. accès deux cent nag deux cent lañ fi jënd mu ngi nii toog loolu ñu ko jënd ci Arouna Gallo Diallo dafa ñu ko transporté indil ñu te lépp la ray ñu ko rek dudul joxe dafa ñoo xam ne ne lii borom dëkk yi la ak imaam yi ak dëkk yëpp la ñuy joxe amul benn dëkk bu village officiel bu ñu bàyyi amul amul daal laa bëggoon wax ak ak boole ci enveloppe yoo xam ne ne waa xam nga nit tamit mënul wax loolu après taxaw di lim daal mais joxe naa li doon joxe